déglu naa leen sànq xam nga Sénégal tuumaal nit dafa gaaw sànq yéen a ngi wax ci euh, problème de la nationalité am benn acteur politique bu ko soulever muy Thierno Alassane Sall le président Thierno Alassane Sall mais fàtte xaju fi 2022 ñu bëri waxoon nañ fi ni coalition boobu tudd aar Sénégal Macky Sall la liggéeyal amoon na fi war non dama loolu ay euh, te opposition wax. en l'occurrence wax nañu wax nañu te loolu moom moo ñu andil. waaw dama ñu am de de de piètre moo tax ma ni il faut que ñuy arrêter di accuser ak di créer ay suspicion parce que ñooñu tuumaaloon nañ leen fi 2022 ni leen. dañu dem élection pour soutenir mais le régime. mais ça n'a rien à voir. ak le pouvoir non dama lay wax rek. n'a rien tout ça c'est politicien. ay discours politique. Ah. ak ak question de double nationalité. bi. moi je parle des discussions yi nga wax que moo tax ñun ñu jàll parrainage. waxuma ci affaire double ah, nationalité. yow yaa indi yow yaa dama non dama lay wax ni la ñoom ñoom ils ont été victimes de suspicion comme ñun tey ni ñuy tuumaale loolu. dëgg la wala dëgg. au bout du compte bañ demee ba ci cëppaandaw ga ñan lañ gis ñu liggéey ak Sall est-ce que Sénégal dañu dem rejoindre pouvoir bi dañu dem ci dialogue bi demuñu ñan ñoo dem xam nga leen xam naa leen donc sénégalais mënul jël responsabilité am am courage am mu ni dafa bëgg a soumettre un projet au sénégalais ñu jàpp ni euh, plan wu ala la wala plan wu Z wala plan wu B du plan wu kenn plan wu Sénégal la avec son projet boo xam ni jooy bind na ko ci téere bi ñu wax la Sénégal qui vient donc loolu lay proposé sénégalais yi liggéey nag liggéey bu sérieux ak bu honnête man war nga ma si mën a gëm parce que man am na lu ma xam ci processus électoral. yàgg naa si liggéey. donc loolu moo tax ñu am parrainage. mais dama ni non bokkul loolu loi électorale bokkul ak politique.